suñu jógee Ziguinchor dañu ñëwaat fii ci dakaar gis ngeen ni que ay fan yi ñu génn kii di Barthélémy Dias dugaloon na candidature am foofu ca mairie Dakar pour jongante élection municipale yi ñu jëm le 23 janvier mais ginnaaw loolu dafa am benn convocation boo xamante ni jot na ko jëm foofu ca wàllu cour d'appel su ngeen fàttalikoo atum 2011 am na kuñ fi faatoon muy Ndiaga Diouf bañ ko faatee nag kii di Barthélémy Dias dañ ko tegoon loxo bañ ko tegee loxo ndaxte dañu ne woon daf ci taqe daf ci laale ginnaaw loolu nag yoon atte woon ko attee ñu tëj ko ñaari weeru kaso xamante ni juróom benn weer lay tëdd ci des sursis la ginnaaw loolu bu mu amee nag kii di Barthélémy Diaz moom dafa déposé woon appel maanaam appel suñ ko xasee ba dugal maanaam mooy première verdict bi compteetul maanaam dañuy demaat ci beneen jugement beneen jugement boobu nag ginnaaw euh, bañ leen ko renvoyé woon juróom-ñaari fan ci weeru juillet bi ñu génn nii maanaam dañ ko convoqué fukki fan ci weeru novembre muy le novembre mais convocation boobu dañu ne dafa coïncider ak Barthélémy Diaz a ni que Barthélémy Dias dafa déposé candidature ñu convoqué ko le novembre est-ce que noonu la demee déedéet ndaxte procès bi juillet la amoon bañ ko renvoyé juillet xamaloon nañ que le novembre Barthélémy Dias dañ koy convoqué. est-ce que tey ba ñu defee seen coalition ak Khalifa Sall fu mu taxaw est-ce que xamu yoon le choix de Barthélémy Dias foofu pour mu doon candidat foofu ci mairie Dakar c'était pas risqué parce que ñoom ñëpp ay politiciens la yàgg nañu ci politique xam nañu Barthélémy Dias dafa am ay tuuma yoo xamante ni dafa tegu ci ndoddam donc tuuma yooyu tegu ci ndoddam amaana tey su doon juróom benn weeru kaso yooyu appliqué nañ ko nañ jàpp ni Barthélémy Dias a doon manipulation la ba pare ñi bàyyi Barthélemy Diaz ba ñu ne Khalifa Sall moo joué jeu boobu pour euh, Soham El Wardini bañ a jàll pour ñu jàllale Barthélemy Diaz ndaxte xamoon nañu Barthélemy Diaz dafa amoon Euh, procès ak euh, état bi parce que moom defoon appel appel boobu bu ñu ko renvoyé le 7 juillet ñu convoqué woon que le novembre mais ba mu dugalee candidature ci euh, bërki démbu alxamis ci guddi aljuma ji la jot convocation yoo xam ne ni que le novembre dafa war a ji foofu ndaxte tey Barthélémy Dias su demee wuyu ji cour d' appel validé waat jugement boobu parce que candidature Barthélémy Dias dafay nul Barthélémy Dias dootul mën a nekk candidat foofu tout cas question bi ñuy posé daal Barthélémy Diaz xamoon na ni que le 10 novembre moom dafay wuyu ji foofu ca cour d' appel ndaxte moom moo defoon appel bi tribunal condamné bi tribunal jëlee décision bi moom Barthélémy Diaz moom moo defoon appel ginnaaw loolu 7 juillet bii passé la waroon def procès bi ñu renvoyé ko ba le novembre donc bi mu dugalee candidature si lañ ko convoqué en tout cas daal coow li bëri na dem na ci mbirum politique mais Barthélémy Diaz avocat am daal dem en tout cas daal Barthélémy Diaz ne fekk na ci ay politiciens yi ma gën a respecté ndaxte dañu am seen conviction dañu am seen gëm-gëm am li ñu gëm bokk na ci ñi ma gën a respecté su dee yoon gis na ni que Barthélémy Dias daal mën na nekk candidat ñu bàyyi ko mu nekk candidat suñu gisee tamit yoon dafa am leen lu mu ko teg je crois que nañu accepté foofu demandoo ci élection yi ci jàmm ndaxte yaakaar naa ne la ñuy xëccoo ñu fekkee ko moo gën ndaxte suñu xoolee li xew bërki démb fële ca Ziguinchor mooy euh, ñoom euh, waa Pastef bi ñuy ñibbi si ñëw ba ñoolo muy Ibrahima Fall di am ndaw di Moussa Camara ñoom ñëpp ba ñuy génn seen kër di dem ci tournée boobu woon du ngeen dellu si kenn du ko gëm donc yàlla dafa noppi démb tey soo a ñëw la ñuy sóoraale loolu xam na ni que Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar jamono ji politiciens yi politiciens yi ñu ngi ñuy sonal te ñu ci bëri dañu dugg ci politique te xamuñu politique tey Barthélémy Diaz waaye Yewwi Askan Wi ak Taxawu Dakar bañ koy choisir pour mu nekk seen candidat xamoon nañu c'est risqué parce que lu tax nga xam ne c'est risqué parce que tey koo xamante ni dafa am procès nekk devant la justice te verdict bi tombeegul te mu leer na que verdict bi suñ ko appliqué kii du mën a nekk candidat maanaam ay droit am yu bëri dañ koy bafoué tey Khalifa Sall bi ngeen di waxal mënul nekk candidat Khalifa Sall mënul voté Khalifa Sall mënul def dara ne dafay toog di que waruñu woon di jël de liste foofu ca conséquences yi la indi après coow lay indi suñu demee ba si élection yi élection yi dafay jaxasoo après kan la ñuy acquitté dañuy naan pouvoir bi la en tout cas la loi est là pour tout le monde nul n'est au-dessus de la loi comme ni ma koy waxee rek kii di Barthélémy Dias déposé na candidature am foofu ci mairie de Dakar waaye jàppale ni que procès boobu moo te ni moom moo ko lancé woon en appel ginnaaw bi ñu faatee Ndiaga atum ñu tëjoon ko fi lu toll ci ñaari atu kaso donc juróom-benn weer yoo xam waroon tëdd maanaam li ci des mu doon sursis Barthélémy convoqué nañ ko incha allah le 10 novembre lay wuyu ji foofu ci cour d'appel ay waay ginnaaw loolu gis nañu kii nga xamante ni élément Barthélémy Diaz la am nay kàddu yoo xamante ni yëkkati na ko teg ko ci kii di euh, Badara Gadiaga Badara Gadiaga nag su ngeen ko déggee benn jeune la nekkoon ci parti euh, Idrissa Seck bu réew mi ginnaaw loolu nag gisaat nañ ko fii mu doon euh, jàppale kii di Soham Wardini xamuñu dafa bàyyi réew mi léegi dem ànd ak taxawu Dakar en tout cas daal mi ngi doon jàppale kii di Soham Wardini waaye ginnaaw Badara Gadiaga boobu nag kii dafa am ay kàddu yoo xamante ni yëkkati na ko ndaxte mi ngi koy fàttalikul foofa ca kii di Badara Gadiaga moo falsifié woon ay documents pour ñu recruter foofu su ngeen xoolee ex directeur du CICES Mamadou Ndiaye li tax ñu gën ko limogé foofu je crois que foire bële passé ba ñu génnoon euh, quoi gi ci amoon ak xaalis boo xamante ni marché boo xamante ni joxoon nañ ko ñoom Badara Gadiaga ak seen ñooñ ak ñoom Cheikh Yérim Seck ba ñu am ci ay déficit yu mag a mag je crois que loolu bokk na li tax kii di directeur du CICES bi jógee foofu nañu déglu kàddu si si man la kay. d'accord du yow la waa Cour des comptes génne loon rapport jox ko chef d'état ne yaa doon jéem def ay faux diplôme pour jéem a liggéey fee ci CICES yow la woon ou bien. si man la kay. waa Gadiaga doo ñu fàttali tuuti rek kan moo la formé ak kan moo def li nekk ci yow. je suis un jeune du parti mi formé par le président Idrissa Seck. ah ok d'accord ah yow yaa koon taxaw nii nga ne Soham ni moo gën Barthélémy jaar ci mairie de waaw man de maa wax loolu. ah vraiment nag Gadiaga je suis désolé mais tu n'es pas crédible en face de nous la jeunesse consciente. te nag wax dëgg yàlla ci es trop comme ta pour nu diir kan la ñu war a teg suñu mairie de Dakar. ma tegal la si rek ne la ku mu soow formé wax dëgg yàlla say wax du ma tax a dóor samay doom. te ma lay fàttali rek ni la Dakar a choisi son digne fils ki est Barthélemy Diaz. waaye nag àdduna mu tëddee noonu foo gisee ñu baax rek am nañ ca wet ga ñu iñaan fi may jeexalee nag Alpha Blondy daan na wax naan seul les imbéciles ne changent pas